laa si commencé dégg samedi ba tey kon euh, alors courant mi ngi coupé euh, Walfadjri moom courant coupé na vendredi dem ak dellu si <laughs> li bi euh, di coupé di dem di dellu si ngi mel ni tàngaay bi dafa ñëwaat ak ay mbirum courant yeeg yooyu te damay dégg ñuy naan président Macky Sall réglé woon na problème courant bi définitivement lan la problème bu ñu recevoir moom moo causé désagrément yi mais tey mooy pose la question ban société tey moo nekk en charge jël euh, fil yooyu xam nga mosoon nañu fay dal Georges je me rappelle plus c'était quand c'est quelle année ñu amoon benn produit fil bu bon bu ñu kii woon mu yàqoon euh, les machines ba nga xamante ne période boobu dafa doon am ay délestage. c'était vers les années 2011 je crois. 2011. Euh, mm-hmm. tey ñu ñëwaat on nous parle de mauvaise qualité de fuel boo xamante ne moom moo indi ces délestages là est-ce qu'on nous dit également la vérité. xanaa Sarr liggéeyul. moo moo tax ma ne la ban société moo am euh, sañ-sañu def loolu. xam nga Sarr bañoon nañu ne euh, déficit kii amul carburant mm-hmm. amul. waxoon ne c'était pour un temps day ñëwaat ak yi ni approvisionné nañu lii ak lii ak leen mhm. ba ministre du pétrole génne woon joxe des assurances mhm. mais li ñu gisoon au niveau de l'aéroport kérosène manqué woon na ba nga xamante ne dañuy dem beneen dëkk pour ravitailler woo foofu doog a wàcc fii waa Mauritanie kay ñoo ñu sauvé léegi nag tey jii carburant également on nous parlait de ça toogoon nañ fi bonbonne de gaz amul mm-hmm. tey jii ñu naan fuel de mauvaise qualité moom moo ñëw ci réew mi mm-hmm. moom moo indi ces coupures là mm-hmm. mais tey SAR mi nga xamante ne moo yore woon en charge de ça ndax dafa nekk en déficit wala c'est quoi le problème wala ni ko président waxee woon la guerre en Russie moom moo am répercussion tey mais finalement centrale solaire bi ñu am fële ca Matam lan la ñuy jëriñ wala amul boobu productivité boo xamante ni dina mën a. non centrale centrale solaire kay bëri nañu si dëkk bi sax. fii am bu gën a bu gën a mag bi moo nekk maatam bu ma juumul. non am na bu nekk fii rek euh, Malicounda je crois. Malicounda bo boobu. Euh, mm-hmm. Tooboor mooy fan bu Tooboor bi mooy fan centrale électrique bu Tooboor. Tooboor euh, tooboor Sénégal si. tooboor fii bañ doon wax ne boobu su kiiwee mi ngi ci Sénégal waaw problème délestage dootul amati. Mhm. loolu yëpp dootul kiiwati mais tey jii euh, man suñu jëlee comme ali bi mauvaise qualité du fuel. Mhm. dañuy gën dugal seen bopp kon c'est-à-dire que ne. Euh, déficit bi ñuy wax am na ci réew mi SAR n'est plus en mesure de ravitailler. mais mais Georges Nessa déggoon nañu fa ay information ñi naan Sénégal léegi dafa am courant bay jaay sous région bi. je crois que loolu yëpp c'était du c'était du vent quoi parce que quand même bu fekkoon ne Sénégal am na courant bu doy ba muy mën a permettre muy muy jaay yenn. Mhm. yenn pays de la sous-région. kon war ñu woon toll fii. war ñu woon deux ans après wala un an après qu'on se trouve dans cette situation de. te terre bi commencé gul dawut courant donc euh, bu fekkee ne terre bi commencé ndaw ak courant dina dina gën a métti alors. Mhm. donc man je mhm. crois que les yoo xam ne moom la. moom la moom la ñuy faral di joxe parce que d'habitude bu ñu boo dégloo les responsables de la société de de la Sénégal leen daan tàngoor tàngaay bu jotee. waaw euh, suñu consommation day yokku parce que nii dañu taal les climatiseurs les ventilateurs et frigo yi dañuy gën a consommer et tout ça mais je crois que bon dans un pays euh, développé comme le Sénégal en fait dans comme Sénégal qui se targue d'être quand même am na am na. autosuffisant ah, bon du ma wax ne autosuffisant mais en tout cas pétrolier vraiment war wartuñu am yenn problème yi. mais est-ce que ça pas empirer am na yoo xam ne mën nañu ko accepter comme ay réew yu mel ni peut-être ay Guinée Bissau wala Guinée Conakry sax te Guinée Conakry vraiment ñoom ñu ngi def seen kem kattan pour dépasser ce ce stade là. Mm-hmm. donc je crois que sénégalais aussi en tout cas nos autorités war nañ def effort pour ne pas. tombé dans ces histoires là nga xam ne da ngay naan non tàngaay bee ñëw tàngaay bi ñëwee courant bi day. Euh, dañ koy consommation bi day yokku. mais il faut nous donner euh, peut-être d'autres mis à part pétrole bi kii di wax. Mhm. ñun source énergétique yi ñu am ci biir réew mi. dafa bëri surtout soleil bi sax xam nga soleil bi moom éolienne bi euh, loo lu dul épuisé les barrages yi ñu mhm. waxoon yooyu yëpp tey jii. waxuñu woon nekk moment boo xamante ne dañuy am ay problème euh, électrique gis nga dafa am yenn dëkk yoo xamante ne développement ça passe par la parce que par exemple tey jii soo demee en Europe courant su coupé loolu événement la. Mm-hmm. parce que da ko dul sax gis. Mm-hmm. wala nga koy dégg. tey ñun source énergétique yooyu yëpp ñu am te xam nga président de la république dafi toogoon wax ne la guerre en Ukraine dafa am répercussion ci dundi bi lii ak lii ak yi est-ce que électricité boobu tamit du ci bokk tey est-ce que les choses ne vont pas empirer parce que comme ni ñu ko waxee on est en période de chaleur euh, l'été est venu très vite sans crier gare ak tàngaay bu métti est-ce que loolu itam euh, dinañ ko mën a supporter tey jii est-ce que tey ñu commencer di def comme ni ñu doon def ñii am euh, de huit heures à dix-huit heures ñii am de huit heures à six heures du matin est-ce que du du commencer waat parce que instant bi ni courant yi di couper que tàkk métti na métti boo xamante ne les gens ne peuvent pas supporter avec cette chaleur mhm. te pourtant on a des sources d'énergie yoo xamante ne on l'a pas exploité ñun euh, ñun nu ma on ne prévient pas ñun euh, instant T rek lañu ñu mën a gérer su passé bàyyi nañ ko on passe à autre chose. Mhm. tooboor bi ngay laata de mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi nekk sujet euh, discussion ci euh, YouTube bi am na ñu ni tooboor mi ngi nekk ci. entre Ziguinchor non tooben la Tóobén d' accord centrale euh, électrique bu Tóobén d' accord bu nekkee Tóobén am na ñu ni Tóobén Thiès la nekk waa mooy centrale électrique bu Tóobén d' accord d' accord d' accord euh, alors euh, dernier dernier mot Georges Nessa balaa ñuy tëj lan moo war doon tey ji alternative yi parce que déjà ñi ngi am ay centrale solaire yaa ngi koy wax sànq bu Malicounda amoon na ay espoir yu mu suscité mais malheureusement mi ngi mel ni tey ji Euh, ba tey Sénégal sax électrification rurale bi ñuy wax euh, problème la ba ñuy wax waxu dakaar bi nga xamante ni dafay am ay parce que délestage sax garaawul mais ñi nga xamante ni tey jii mënuñu gis courant te courant bi daleen di romb mënuñu si jote loolu yaakaar naa ne problème la complication la ci Sénégal. waaye électrification électrification rurale bi ngay wax noonu. Hmm. Euh, elle n'est pas si effective que ça. mais bien sûr c'est vrai que am na ay villages yoo xam ne am nañu courant. mais ñu gën a bëri amaguñu on est su ma ko doon évaluer demee naan peut-être qu'on à à vingt ou vingt cinq pour cent parce que ça waaw waay loolu de moom laa jàpp. ay ay jeunes étudiants yu Malem Odar daje nañu ak man euh, di ma xamal que ni ñoom foofu ñu nekk te ñoom ñoo nekk ci ville bi entre guillemets ci Malem Odar amuñu courant euh, wala lu ñu am courant dañ koy wàññi si si si si si bis yi. loolu laa lay wax ni moo moo tax ne la bon c'est c'est vrai que am na auto boo boo demoon tey nga laaj autorité de la Sénélec dañu naan non l'électrification rurale effective peut-être à cinquante pour cent wala kii mais bon boo demee si biir àll bi di nga xam ne que ce n'est le cas. Mhm. donc euh, man tamit je me toujours des questions sur les l'efficacité ou l'effectivité des mooy. Euh, centrale centrale kii yooyu les les centrales solaires. centrales solaires pare installé un peu partout. Mhm. benn nit ñi di si euh, nguur di si baaxut naan finalement léegi ce sera la fin des. délestage mhm. sera maintenant des mauvais souvenirs pour le Sénégal. kii mu ngi koy wax léegi jëloon nañu sax bateau turc luwe ko teg ko fii ci. Euh, port de Dakar am na ñoo xam ne dañ koy euh, expliquer par euh, la guerre en Ukraine la guerre en Ukraine a bon dos. Mm-hmm. c'est vrai que guerre bi ñëpp xam nañ ne am na mu ngi dina am ay conséquence sur euh, beaucoup d'économies sur la vie même citoyen lambda qui habite peut-être Fongolimi dina am conséquences si moom. Mm-hmm. mais on ne doit pas toujours tout justifier par cette guerre-là. il faut toujours savoir dire que est que lii li mu tey boo demee si boutique bi sax. ngay ngay laaj benn benn benn kib machine la kib machine bi doon jaar vingt cinq cinquante franc. waaw loolu moom c'est bizarre. gerte jaab sax yokku na nga ne guerre bi Russie la. Hmm, dëgg la nga dem di jënd pain ñu ne la pain bi doon jaar cent franc léegi cent cinquante. jaar bi hmm. nga dem jënd essence nangam nangam ne la guerre Russie la mais finalement xanaa guerre Russie nag mooy Russie. vraiment lépp lépp xanaa lu ñuy lekk yëpp ak lu ñuy naan ak lu ñuy utiliser yëpp. la lu jëfandikoo xanaa Russie lay jógee mais non mais je peux comprendre je peux même comprendre. ripaas sax tey jii boo xoolee. <laughs> Euh, ñu doon jënd aliment ak ripaas. mais euh, seen prix bi dafa doublé carrément. bañ leen naan léegi ginaar ay 4000 francs lay jàpp. Pape Matar nen boo ko jëlee léegi gars la ah, bi moo ko. yokk nañ <laughs> nen bi lan la si njëriñam si si si njaayum ginaar. a mais Pape Matar lépp yokku mais euh, li doon jaar juróomi dërëm léegi fukki dërëm la. li doon jaar fukki dërëm tey 100 francs la. tey benn nen. te ñu ngi jëm ci tabaski ah te tabaski bi dina metti torop ci sénégalais tabaski bi dina metti xamal lu dina métti mhm. xar yi Mali lañ doon jógee du ñu ñëw xar yi euh, Mauritanie lañ doon jógee Mauritanie moom dina lañ leen seen taxe pour ñu mën a indi si Sénégal mi mais je pense pas que ñu indi mais du doy mhm. te tey soo xoolee àll bi wow na wow boo xamante ne xar yi fa nekk ràgg nañu ràgg goo xamante ne ndax amuñu ñax bu ñu lekk ndox gi ñëwagul mhm. muy problème boo xamante ne euh, on va venir ah tey de ku mën a jënd sa as mbote te même sax même boo jëndee mboote tey jii maa ngi la koy wax léegi euh, li ñu koy dundalee dafa cher dafa dafa saag yi dafa waa xanaa loolu ceeb sax léegi dafa cher est-ce que gars yi nga xooñati ko rek xoojal leen ñu na lekk xam naa George Nesta du jël xaalisam jox la ko dépense ak jamono jii nu xaalis metti nga koy xooñal mu koy naan koy jox ay xar xam nga du ko def ah, <laughs> Matar euh, kay moom la boo ko defee jaar yoon génn këram eh, est-ce que tey jii ñun sénégalais on n'avait pas vu venir et on n'a rien fait pour ça ah waaw bi ngi mel ni de hmm. parce que comme ni mu ko waxee euh, la guerre en Russie a bon dos ça montre que ne tey jii ñun indépendance que de nom. li Souleymane Faye di woy gan gu ci kër gi <laughs> waaw. <laughs> guerre Russie bi daal mooy gan gu ci kër gi lu réer ji du moom la. mooy li Bamba Fall wax rek lu xew ci dëkk bi rek ñu ne makkee. <laughs> ay yow wax ma bu ma waxoon Souleymane Faye wax ma ay nit ñu valeureux ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax aw Diop Ndiaye. maa ngi lay jaajëfal Pamata rendez-vous lundi incha allah. waaw bu la neexee suba sax nga ñëw boo amee temps rek ñëwal nga toog fii ñu waxtaan <laughs> jaajëf jaajëf euh, Georges Nessa Diop ñu ngi lay jaajëfal jaajëf di jaajëfal ñu ñu doon topp ci euh, page euh, YouTube bu Walfadjri Laye Pythagore Abdou Dieng Abdou Dieng nee na Awa Diop Ndiaye sa pertinance da da